Ok. Maintenant, faites-moi vais... écouter la partie où j'ai insulté et moi, je te demandé pardon. Tu as manqué de respect les, les, hommes de tenue Tu as manqué de respect le président Tu es qui pour être ici à parler de l'homme de tenue du Sénégal euh, Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi, le Sénégal. Mais le mon ami. c'est le meilleur pays de l'Afrique. Le Sénégal, c'est le meilleur. Ok Tu ne peux pas diviser le Sénégal. nous là, au Sénégal, nous force personne de venir au Sénégal. OK Les Guinéens, on ne veut pas. Les Guinéens d'or, les Ivoiriens d'or. Le Sénégal reste au Sénégal. Nous, nous on ne veut pas les Guinéens, on ne veut pas les Attends. Ivoiriens. On ne veut pas les Guinéens, on doit être d'or. Tout. Tout. Le Sénégal reste au Sénégal. Nous sommes des Sénégalais. Personne ne manque de respect au Sénégal. Moi, mon drapeau, personne ne le manque de respect. Tu as parlé mal, les hommes de tenue. Tu as parlé mal, le président. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ma ko so live fam laa ko fekk téegal ndeyam ba mu wàccee ma ña yëgoon ca kaw ba di wax yëpp moo leen ëpp lamiñ dàq leen wax man damaa dëggu téegal ndeyam te dama doon doxaat ndeyam de li tax mu wàccee ma moo ko xam am naa féq bu yëg naan Adama c'est un comédien lii waxu comédien la naa fekk yi complexe yu kat sedda yi di jël affaire bi di ko tourné ci wàllu politique li du géewu politique ndereen yi ak ñag yi dañoo bëgg a yeb sénégalais yi lii du Macky Sall du Sonko affaire de dëkk la affaire de xeet man Sénégal laay représenté ñoom seen dëkk la di représenté ak seen i bopp ku ci manque de respect Sénégal ma toj sa cott ndey complexe yi dugg foofu naan Adamo ah, comédien la c'est un day wax lii dama ne la kat leen seen data day laa la wax ay sénégalais man Sénégal lay représenté kii li ma mën a wax ak moom bu may déglu kenn mënu ko ci yéen ku fay yëg dalay lekk ndax moo leen dàq wax dama kat nday ba mu wàccee ma ma wax ko ne ko yow Guinée bi artiste bi lan moo tax muy refusé pour ñu contrôler ko du doomu Berlusconi du doomu Angela Merkel du doomu Giorgia Meloni du doomu Macron Sadio Mané sax bu jaayee aéroport aéroport dañ koy contrôler waxuma la ak moom kat naa ndayam kat ndayam représenté Sénégal ba mu jóg te su ma jëlaatoon ma Dakar ndayam complexe baaxul nit sa réew moom mooy lépp bu la ko dara gënal ñag bu njëriñ yi naan kat seen day ci biti ivoirien yi seen data day ku yëngal Sénégal ma lekk sa data day wasalaam